إني أقول ولليوم زور لله القائم على كل نفس بما كسبت المحصي على عباده جميع أعمالهم قلت أو كثرت ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو شهادة عبد وبحرت طبيته وأشرفت وأصرفت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله xayra mawjudin shahidat bihi xayra ummatin uxrijat linnaas sallallahu sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi alladina kabarat makarimhum makarimuhum wa kasurat amma baad fa yaa ayuha nnaas udkuru nicmat allahi alaykum hal min xaaliqin xayrullahi yarzuqukum min asamaai wal ard laa ilaha illa hu fa anni tufakun wastaxfirullaha wa lahu anibu wa iyaahu faraquhu wa bi xiyaarikum tawassalu wa azimu hurmatillahi wa an zulmi irjau wa an ilmaalimi taxallalu wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa wa alamu anna allaha shadidul iqaab wattaqu zulma fa innahu yaibu al aamata kama yasunu al xaasa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam فيما يرويه عن ربي يا عباد الله إني حرم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار in kullukum aarun illa man kasabtu fastaksuuni aksukum yaa cibaadi kullukum tuxtiuuna billeyli wannahaar wa ana axfiru dunuba jamian fastaxfiruuni axfiru lakum alhamdulilahi raaxima man tadarraca bayna yadayhi muniiban wa xaadica wa jaabira sadcin man qasadahu munkasiran mutawaadica laa ilaha illaa hu laa maanica lima acta wala mucti lima asbaxa lahu maanica أحمده أني لا أحصي الثناء عليه ولكني أصل ما كنت له بترك حمدي قاطعا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا أيها الناس istanzilu ma inda allahi min binnadami wal istixfaar waqifu bayna yadayhi wuqufa zulli wal inkisaar fa inna man waqafa bi baabil karim fataha lahu baab wa man istaxfarahu xadaa xawaaja wa yassara asbaaba wa fi xadiisi Mustafaa sallallahu alayhi wa sallam yaqul alaa adullukum alaa daa'ikum wa dawaa'ikum alaa inna daa'ikum alaa inna daa'ikum zunub wa dawaa'ukum al-istighfaar ja'alani llahu wa iyyaakum mimman kaana li hadiis nabiyyihi al-kariim waa'iyan وبما ينفه يوم يوم يوم يقوم الشهداء مجدا وساعيا لا يرفع شكواه إلا لمن يكشف بلواه ولا يعلن دعاء إلا من يجيب إلا لمن يجيب المضطر وإذا دعاه ذلكم الله ربكم تبارك الله رب العالمين huwa alxayu laa ilaha illa hu fad'uuhu muxlisiina lahu ddiin alhamdulilahi rabbil alamin غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وطهر قلوبنا ويسر ويسر مطلوبنا وأصلح أحوالنا وزكي أعمالنا وسدد أقوالنا وحقق وحقق في في عفو في عفو أعمالنا istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud yaghfiru llahu lana wa lakum wa li jami'i al-muslimin